nawet gi ba mu tàmbalee ba léegi béykat yi lu ñu jot a jiw amul benn gàllankoor bi nga xamante ne neemeeku nañ ko bu ñu sukkandikoo ci ministre bu ñu denk lépp lu jëm ci wàllu agriculture. gis nañ toolu ceeb toolu euh, maanaam dugub toolu mbokk rawatina toolu gerte fi ñu comme fi ñu nekk nii yoo xam ne macha allah rafet nañu rafetaay boo xam ne daaw ñu gis lu ëpp loolu. loolu moo ñu en tout cas ñun gëm loo ni ren Sénégal production record bi ñu amoon deux mille vingt ren incha allah. mën nañ ko passé. Moussa Baldé teg si ne sax ren yaakaar mënees am ci li nga xamante moy jiwi gëm nañ ni Sénégal liñu gis ren. mo gëna rafet fofu liñu ñu 2020 2020 nak xamone ngeen ne Sénégal. manam am presque 90 euh, millions ak genn wala tonne ci ci céréales. gëm nañ ni ren war na ko mëna upp liñu gis ci gerte aussi non la mais lolu aussi worul ne bu rendement yi production bi du egg comme bu daw en tout cas moom Moussa Baldé mu ngi yëkkatee yile kàddu ci ab tukki nemmeeku bi nga xamantene mom la amalon ci week-end bi ci dëkk bi di ak ab tamit le ministre de l'agriculture se félicite du bon comportement des cultures. nous avons en tout cas espoir que la campagne agricole 2022-2023 sera l'une des meilleures que le Sénégal ait eu parce que sur le plan de la pluviométrie, la météo avait annoncé un hivernage précoce, il est, un hivernage pluvieux, <laughs> il est pour le moment très pluvieux. Moussa Baldé nourrit l'espoir de bonnes récoltes. Ils avaient dit qu'il irait jusqu'au mois d'octobre. Et nous pensons que la météo maintenant, ce qu'il nous dit, on peut vraiment travailler avec. Et nous espérons donc qu'on aura de bonnes récoltes et qu'ici, en tout cas au mois d'octobre, ce sera la fête dans toutes ces régions. Accompagné d'une forte délégation, le ministre de l'Agriculture a effectué une visite de terrain ce week-end à Tobakuta pour voir l'état d'avancement des cultures.